materi xamé nguko mo yoron lepp ramdan moko ramdaan moo ko yor gisatuñu ramdaan Fall bay maa ah de siyaar naa def. ci lo nek sante bu da nga ñew lu simple. wa dama ñew euh, setan ci sama ben xarit moy moy teug làmb ji. muy góor daa mel sa yef la ha ah mel sa yef la. wa sama yef la sama ciosan la wa ana ramdan ram muy fi. <laughs> non ana ramdan ram muy dafa bàyyi làmb. bàyyiwul làmb de. kañ la gëj a mu ngi ñëw. dégg naa daa daw muuru muuru ji de. dawul de dawul dafa gisul eh, gisul combat rek. dafa gisul combat mais bu gisee combat ñëw. Ramdan kay gis na combat ndax duggoon ci kalaaf ba waroon a Pambay. waaw mais Pambay moo dawoon. ah feebaroon. feebarul woon de dara jotu ko mais am nga yaakaar Ramdan dina ñëwaat bëre. ji dina ñëwaat ci ba ñu ngi wax waaw. Ramdan bu door dóoraat dina ñëwaat fii bëre. day ñëwaat fii bëre takk ngeemam bëre. Ramdan dégg naa faru ci yooyu bay dutul bëre de. ah loolu nga foog rek. ah waaw. ana Garga Mbossé. Garga fi. kun koy wax. ah Sa Thiès laa bëgg. Eh, dafa mer booy ñaaka mujjee daan moo la daan daan ko. jooleen ma Sa Thiès. à part Sa Thiès. jooleen ma Sa Thiès. à part Sa ma Sa Thiès ma defal ko bagage. Sa Thiès rek ne ko Reug Reug mi la bëréew mi nag. Reug Reug ñemewu ma. tey bàyyiwu la fi nag. daf ma xam. am la xamee. daa lu ñu bokk ma moom. lu ngeen bokk. ñoo bokk maam. mais Reug Reug bàyyiwu fi kenn la ma wax. ñemewu ma ñemewu ma du ma jël. boo ko waxoon tey tey tey kon xanaa ma voyagé man. dem na États-Unis mooy doole. ah dem na États-Unis doole. Garga. Euh, euh, Reug Reug Sa Thiès guy gi koo ma ci jooma defal ko bagage. kër a bari na pour ñooñu. barke sëñ Tuba ba suba suba. dinaa xoolee kër ga mos wax ak loolu. xam naa yow ba suba ba suba ba suba. bu nga dugal kër dara seetu ko de. roi des arènes la. du fii ko waxee. kër ga mos. mosuma kuy daanu. mais roi des arènes Modou Lo la. mosuma ànd ak kuy daanu. ram daan bi nga ànd moom ba daanu. musuma anak ak kuy daanu xam nga ndax am dégg nga ma am déet mané ramdan bi nga and ak mom ba lolo tax mané la roi des arènes la xana mu baye béré kan ko mos dañ roi des arènes xana mu baye béré lolo ci sunu kanam la nek ma lay bëgg waaw jaajëfati ki pap aline la amateur la momit amateur la dafa baye lamb sax légui ñëwatul ci lamb ji ikiri pa dambay la yor ma ngi siar ma lay delo siar ci xadim ci lo nek san señ tuwa lu waral tey sa teewaay. waaw tey dama ñëw sama doomu ndey yi ñoo tëgg làmb ji ma ñëwoon fi seetaan mais Tapha Tine dafa war a bëre de. le géant de Baol. waaw Reug dëkk na ko. a ah, Reug Reug am na droit dëkk ko champion la mais am na lu jaadu ak lu jaaduwul. Gris Bordeaux Eumeu Sène dañ ñëw bëre ak Tapha Tine. yooyu combat jàng la. non di question combat jàng sax mais Gris Bordeaux Eumeu ak Bombardier bu ñu bëggee bërewaat lool ay ay làmb tapale la ay. Kombin la kenn xamul nu mu demee mais Tapha Tine si làmb la bokk nañ ko jël bëreeg moom naataangoom la. ñëwal ma Siteu Ama Baldé. Siteu Ama Baldé. Siteu Papa Sow ok Siteu Papa Sow waa làmb la mais ñu ngi ñaanal Papa Sow suñ borom may ko ndam ñun passé lañ dëkk nag. waa làmb génn gëm génn faas noo ah loolu moom dara nit bay wax da ngay wax lu la dara wax dëgg fa le promoteur. simple. ziar. ci sant borom Touba rek. te da ngaa woote tere gaal gi fees de. waaw fii de fees na tel moom. waaw nga rek ki ancien couloir laa bëre ba ay bëre. ah mbër nga woon. waaw ñun ñëpp ay mbër lañu woon maam góor production mbër la Cheikh Sarr mbër la ñun ñëpp ay mbër lañ. ah yow li simple nga doon bëre. laa doon bëre mais man Tapha Tine mooy sa mbër moom laa àndal mais Ndiaye Tine mooy sa mbër. le géant de Baol. mais Ndiaye Tine mooy sa mbër. Tapha dañ koy arrangé rek. ah waaw. Tapha Tine dëgg naa dafa war a bëre de. waaw moo ko Ama Sène combat la mais Bombardier Ama Sène loolu ko mën la ñoom ñaar dañoo am ci retraite lañ nekk. loolu du combine amateur loolu combine loolu kenn soxlawu ko saful suukar saful xorom. saful suukar. saful xorom nañ ñu na paaje ko ah. li simple li avec frappe ñu ngi lay xaar di nga ñëw wala. li avec frappe. Ah. non laa indi. ah Ndiaye Tine nga indi. waaw mais li simple da nga yem. waaw li simple rek li avec frappe neexul. lu tax neexul. saful xorom saful suukar. ngay ñëwaat fii. fii le 26. fii nii waaw le 26 bi di ñëw. février sum production. loo fiy tegaat. sum production deux mille cinq deux millions cinq cent. fii nii yaa ngi ko waaw sum production moo fiy teg le 26 deux waaw. maa lay bëggee. waaw jaajëf. pagala mi ini, nii ndaanaan la borom mbuur borom lutte simple gëj nañ koo gis nag depuis moo giri de ngi siyaar waaw maa ngi doon siyaar bu rëwër ci loo nekk waaw maa ngi si jàmm gaa yi la de waaw maa leen raw nag maa leen raw waaye daal na bëre door ci simple bëre door combat amul rek combat lu tax amul combat ah xëy lamb ji moo taxaw rek promoteur contacté wu la non benn promoteur woo ko ma nag ah, en tant que champion d'Afrique lambar am problème rek wacc ñu wàcc ñëw compétir duñ gisee combat am baax dem bëre ji. bi moy ñaar yoon nga ñëw ci mbapat. wa bëri na nak bëri na. ren foo jëm ak gaay wa ma nga ñaan yalla yalla fay ma ndam rek. gaay gars yi ma fa gis ay libidoor ay goro sok la fa gis de. waaw loolooy lamb ndax amateur yi kontaan bëri am bu moy sa sans nga jël ko. jël ko daal mo taxa a wa ma nga ñaan yalla yalla may ma ko. kon ci kanam. jërëjëf wa da nga naa la doomu day Mamadou Diouf la. nan demaat xoolaat keneen dari beneen champion. champion yi nag bari na fi Gora Sock la borom dóor dóoraat li simple la ñëw maa ngi char Bamba maa la fay ci loo nekk maa ngi ci kawam rek bi mooy troisième fois wala quatrième nga ñëw li simple waaw foo jëm ak gars li ah, ma def li war def rek lu ma yàlla may ma jël gis naa fi ay ñoom ay libi door de loolu dara ci bëre lamb lu mu a dis neex lu passé yaa final waaw da ngay final waat tey jël ko jël jël mbabat bi waaw ñoom caaka fay non loolu dara ñun ñëpp benn lañ rek comme dire moo ñu fi indi bëri dóor bi gën a laa gis waaw maa ngi wàccaay bi te doomu daangu doomu daangu combat laay xaar pour mbër yëpp doomu daangu maa ngi ko dégg mu lay laaj rek mbër yëpp xam nga day wax rek mais ñemewu ma mais ñeme na la de ñeenu góosam bi dafa saf ah, ba mbër yi ñu sóob rek mbër yi ñu nappe

foo mujjee. demi final la mujjee division arbitre quoi lan joxe feu rouge victoire ñëpp xam na ni Tony Junior daan na ko mais après arbitre division arbitre la. dañuy tànn daan ci yow. non xam na langue yëpp bi nga joxe victoire langue yëpp dañu kon man xam amu fa mbokk foofa mais xam na ne lii yoon xam na ne arbitre bi daa fa for foofu quoi mais ñuy sant yàlla bu wér. mais yaa ngi luur boolal lese bi. non tey maa ngi si tànk yi maa si tànk yi bëgg kaa jël incha tànkee moo léger bi. waaw ah, loolu mooy léger man xaw ma. mooy poids léger incha allah. le huit foo toll. le huit waaw baax a baax. jarbaatu Eumeu mu ngeen toll. waaw Eumeu Sène man man doomi doomi jandeer laa doomu Kër Mbir ndaw ah Kër Mbir yaaga naa yow dégg nga ko xam nga teraanga ya fa ne ñun ay waa doomu Kër Mbir lan amuñ dara lu dul Kër Mbir mi Yves Lamine Cissé mu ngi seen ginnaaw biyee boo yor mu jënd ga Mëgay Ndiaye monsieur le maire mu seen ginnaaw biyee boo yor muy sun ginaaw bébé boo yor mu jënd ko kon loolu rek doy na ginaaw di sant wa war jaxal dañuy sonn ci àll bi wa war jaxal àll bi fi may dem ne dañuy sonn xaarim xala ci kanam nga ñëwaat ma def beneen inshallah allah ma jëm ci kanam ay mu ragal ki moy arbe bu ngeewal dani ndanan la ma nga dëkk ba jëm ñaajo ma ngi siyaar wa dal na xaar wër ci lo nekk waaw ma ni rek ma ci ko day dem ñu wacc nga wa dama wacc ci mbabal bi quoi fan yëpp ma wacc ci yalla def ci euh, poids lourd lañ may quoi waaw maa ngi wane sama preuve bu baax looy bokk nag armée. waaw ñëw naa jéem bindu poids ba sonn mais gars yi xam nga rek poids léger baal bëgg lu yomb. man xale man ak poids maase mais gars ñu ngi ma dugal poids maa ngi góorgóor bu baax parce que bii passé dem naa ba quart de finale di mbëkkanteeg gars yi bu baax. sa combat maa ngi koy dégg de. waaw am naa benn grand combat. Mor Mbaye la tëgg man ak Daaru ñoo war a bëre quoi. Eh, ndaanaan nga am de. waaw noonu la demee man ak Bébé Daro a la demee nag dama bëgg a feesal stade bi del. la kañ la waaw defal waaj le 29 février. loolu ñëw na de. waaw 29 février de maa ngi waa jam ñaata yëpp nag ak waa déen bi ram nag waa Thiara ñu si biir Bargny xam nga grand combat la ma defaral booy incha allah rabbi ñu ñëw si bu wér waa. ba ci kanam. champion waral ñu tuddee ma nga nekk ci écurie kaay baax gën nañ ko gis nag bëre dóor maa ngi ziar. delloo ziar bu wér. ci loo nekk. maa ngi si jàmm bu bari. tey wàccat wàccati nga de. waa wàcci naa tey. comme terrain gi nga ñëw. waa terrain gaal gi laa ñëw compétir rek. miin nga fi de. waa miin naa fi bu baax. foo jëm ak gars yi ma seen nii. waa fi ma doon jëm ak ñoom rek. waaw final wala jël ko. jël ko laay ñaan yàlla. ci bagal ak góor a soog ñoom li bi door ñii. en tout cas yàlla mooy maye quoi maa ngi koy ñaan mu may ma ma daan ñëpp jël lamb ji na ay nak mom dañ la ko tere ne la bul ko indee non loolu gaay dañuy togn rek ah tere ñu lan nag non non ay rumeur la rek ay rumeur la rek bëre door bi degna naa ko bayyi non non gaay daw rek ben ko nga ngam ba léegi mënoo bëre ak Angleterre ba léegi <laughs> wa parce que gaay yi wuñu quoi gaay kon ñan ñola ragal non ñep say morom ak fi ñep la la wax su may mag sax wuñ ma si ma ñan ñola ragal non mënuma leen lim dañoo bari xam nga lu ndaw lañuy lim ñom ñep gis nga nekkul li ngay bëre li simple wane sa bopp moo tax su ko doo wàññi li simple bi. waaw mais du si dara lambu la rek Gris 2 ngi noonu daw na jëli paa yi mbaru démb yooyu la mu jajëli. Abdou Diouf la jëli baal jàmbur. waaw Abdou Diouf mbaru démb la. mbaru tay la. <laughs> mbaru démb la. mais bëgg naa la ci kanam maa ngi ñëw. noonu la demee sum production tey dafa woote macha allah isaat bu fees gis naa ko nag mu yor ay leget yor ay saafara di xëpp rek grand bi maa mais sant a roog a paax alhamdulilah mais da ngaa woote macha allah isaat bi taaru et eh, avant tout d' abord dama leen di jaajëfal di leen nuyu bu baax di rafetlu seen liggéey aussi ndax xëy na lii ñoo waroon a déplacé wu ci yéen di ko sakku mais xaaratu leen loolu ndax lu jox lu jëmale lamb kanam rek moo leen tax a sant nañ leen gërëm nañ leen macha allah tey nag boo gisee ma takk ci rip sama doomu ndey sama lépp moom moo woote tey muy góor production. waaw muy ku sa si man rek aussi ci lu ma ne mu nga ca donc nii rek la mun a demee bencoo ko ak moom pour rek mu rafet incha allahu rabi. boo jógee bu ngeen jógee fi kat ngeen ñëwaat. sum production mu ngi waajal le 23 février incha allahu rabi. fii nii terrain gaal. terrain gaal gi actuellement nii moom la ñuy estimé. finalisé guñu nag ndax fan lay doon mais ci loolu lañ nekk liggéey instant yi pour indiwaat ko terrain gaal gi bu ci yàlla àndee. ñaata ngeen fiy tegaat mise bi. incha allahu rabi fas yéene nañ fi tegal mbër yi 3 millions buñ fa yàlla yóbbee incha allah. maa magal naa leen bu baax waaye. Jokko Jal. yaa ngi ko tuddee. voilà merci beaucoup euh, sama waay avant tout maa lay remercier di la gërëm bu baax a baax. ci interview bi nga xamante ne maa la ko yaa ngi ma koy accordé tey euh, ci drapeau monsieur le maire docteur Serigne Gueye Diop. voilà soo gisee sama fi teewaay fii tey ça s'explique euh, à à deux niveaux le premier niveau c'est que euh, lii cosaan la cosaanu làmb doon tradition boo xamante ne Sénégal ñu ko bokk alors le promoteur approché monsieur le maire tuddee ko bés bi kon daf parce que monsieur le maire aussi lamb daf sport daf affaire daf mu accepté accordé jël drapeau bi euh, ñëw euh, ak yéen euh, jour aussi absenté aujourd'hui parce que moo fi waroon mais ma may may délégué la pour ma ñëw fii dafa am ay partenaires yoo xamante ñoo nekk ak moom ci dëkk ba lancement de travaux ñuy à 15h je ma drapeau bi il faut alors monsieur le maire euh, docteur Serigne nous avons nekk na koo xamante dafa de jeunesse d'abord parce que c'est ni affaire jeunesse la affaire de la moo tax euh, naturellement daf koy ñëw fête avec toute la jeunesse ñëpp kontaan ñëpp bëgg c'est ça. mais moom dañu bëggoon xam ne ni bii troisième édition wala bii mooy dixième édition wala c'est la première fois. Euh, voilà voilà voilà je crois que c'est c'est facile à expliquer C'est la première édition. Ah, euh, je crois que monsieur le maire musul musul musuñu ko tudde fi fi fi fii lamb kon suñu demee ba mu doon première édition def ko bëggone honorer avec toute sa grandeur mais avec les aléas de la vie avec ligue bu xat-xat bi moo tax franchement mën té te fi mais li su chaque année édition bi nek édition té xamna na ne suñu discuté ci discuter loolu doon ben problème ci mom li moy première édition mu accorder leen ko promoteur bi té lolu gëm na né partenariat la doog bo xamante da ci continuer and ak ñom

Eh, moom xam nga xam nga xam nga man eh, naturellement lii dama ko commencé suivre depuis muy nekk université des fois dama doon bàyyi étude université sax dem di seetaan ay mbapat li doon loo xamante ne daf ma neex a neex carrément mais ma je souhaite que le meilleur gagnant ah. le meilleur gagne <laughs> non xam naa yow caak eh, pour dire la vérité man ñi fi nekk man xaw ma leen xaw ma leen carrément mais caak man dama koy dégg dama koy dégg dama koy dégg mais man gëm naa ni mbër bu mbër bu mbër bu mën muy def la ku ko bëgg aussi

wote ñu wu la yombul tek lamb ba mu jeex ci jamm yombul tek ko ba mu jeex ci jamm rek bénéfice la wote ñu rek bénéfice la bon ma ngi santé la di santan nak amateur lu simple yi surtout di len sant baax a baax baax di len wax ne awma sen fay ndax euh, bes bi ala ala daw sha Allah té li mu trois li mu sa troisième saison bi té yépp ni lañ mel. bon man ak ñoom ay doomu ndey lañ maa ngi leen di sant leen gërëm bu baax a baax kullu séeréer rek maa ngi lay gërëm. bii mooy si ñaata journée. Hmm? yaa ngi ci ñaata journée. bii mooy troisième journée. boo jógee fii. maa ngi dem le 31 mai. booy dem. le 31 mai. le 31 mai. au retour du rama retour ramadan. waaw semaine du ramadan. première semaine ramadan. di retour. premier dimanche weekend di retour de Ramadan fi lay donal encore fi la ko bëgg def waaw yare gal diko andak ko andak fallu ndjay fallu ndjay production ndjay production waaw ma xamna collaboration ak gor production ma fa joggé ma ngi dem le 5 juin le 7 juin 7 juillet juin juin 7 juin fi encore ñaara ngay tegaat 3 millions la fas tek fofu ay eh, sa yaram tang jër day saxar waran dama bëgg wonné benen innovation parce que dafa jot da nga bëgg révolutionner simple. dafa jot dafa jot dafa jot dafa jot parce que dañu ci xaar amatu amateur dañu ci xaar bu ñu dañuy wuyu si moo tax ren dañ leen bëgg a defal spécial saison bo xamne dañ ci gis seen bopp loolu lañ fasiné inshallah rabbi ma lay sant. ma ngi sant ñëpp gid maa fogole séeréer santé a nuun leya nuun o bi nuun on ndeɓ nuun o rek ala laɗ na nuun da nuun ñaan i dara nuun i yaakaaru nuunoyo mu ba nek nuun seereer mbaɗ nduyin maaga aca ala acu amul baay

Aliou Saba dafa xam dama damaa xamul dafa bërësi dafa xamul dafa téye ci biir kaay maa ngi siyaar. waaw xay man maa ngi lay delloo siyaar bu wér. borom Darou Salaam borom Seras. waaw borom arène nationale. borom Dalifor. waaw borom Seras borom. arène nationale moomu googu benn combat nga fa bëreegul. waaw arène nationale yoo xam nga ne man maa ko moom te dina leer incha allah yàggatul billaahi. tey da ngaa si wala da nga ñëwoon bëre. si woon nag damaa wàllu si woon mais dem naa mujj a yaa toog de sa bopp. ah mais la yàlla baax na. ah da nga lekkatul yàpp. Ah, ah ah non Kosaar da laa bàyyi lekkutoo yàpp. Kosaar bàyyi ma yaa ma gën a xam làmb la rek. troisième tour dafa teel. waaw waaw waaw damay ñaan yàlla di ko jël chaque jour nag. waaw parce que tamit dama ciy lekk naaj. wax dëgg fa bi na la de. ah bi namm na la a waaw bëre bi instant moom gars yi la ñu xaar rek. bilaay ñu ngi seen ginnaaw ñoom Pape Diagne ak. ku des. ah. comme bi nga daanee dofu jaas ku gars yi ñoo des rek. nee naa ñaan ma fi kenn kenn laa fi bàyyiwul bari sëñ bi ma waxoon Thiatou Fora. Thiatou Fora ragal la. musul doon ragal. seet xale Seydina Mouhamed Thiatou Fora ragal la xam nga chaque jour la ko. baax na. billaahi Thiatou Fora ragal la. daaw ah. dafa am mel ni am na combat de. am na combat. ah bu amul woon combat léegi. trompeur lay bëreel trompeur. trompeur ah yàlla baax na yàlla na ko yàlla may dam bu ci gëree daal bu ñëwee baax na. non bu bu ñëwee kay baax kenn bari Seydina Mouhamed. bëgg naa la jaajëf a Bada Seck jaajëf Saya cinq cent litre simple Thiaka Faye moo koy bëri ak Boy Faye xoolal Sall toogul taxawul de xaritam bee bëre eh Thiaka Faye ñaan ko biram kung-kung ñaan ko bis bi ñetti la yor arbitre la demi final, Thiaka Faye Boy Faye bi mooy ñaata yoon ñuy daje Sall bi mooy ñaata biram kung waaye hey Fils de Batling maa ngi fa moog Safandu ca côté ba Fils de Batling ak Safandu ca côté ba Caaka Faye ak Boy Faye Caaka Faye ak Boy Faye lit simple góor production wajëf jël nañ sa tànk ñi bañ Caaka Faye Boy Faye góor production woo ñu woo ñan na caaka fay xanaa da nga soj fils de Batil ak Sa Fandou Boy Faye li mi ngi bëree ci kaw caaka fay sàllal nee ko ci kaw rek caaka fay Boy Faye ay doomu baay lan ñoom ñaar ñëpp fay lan sant ñaari mbër li simple di ay ndaanaan Caaka Faye dafa mel ni dafa sonn de mi ngi ñandu ñandu na Caaka Faye Boy Faye ci terrain gaal gi adresse Senghor nga Grand Yoff terrain gaal gi ngi fii ci Liberté 6 campenal xaar caatu xaar yàlla bu jët jël ko jël nañ jël nañ tànkam jël nañ avertir lan lay def avertir nañ ko avertir nañ Boy Faye kàmbar na ko Thiaka Faye kàmbar na Boy Faye kàmbar na ko Thiaka Faye jël na la egg na la fa sori egg na la daan na la Thiaka Faye daan na Boy Faye demi-finale Thiaka Faye Thiaka Faye qualifié na finale Thiaka kaay waxoon na ma ne ma tey dama décidé Thiaka dem na demi dem na finale Birame Koungkoung dem na final bis bi dem na final waxoon na caaga waxoon nga ma waaw di ñaan yàlla rek gagné final waaw. Badlin fils de ak Safane. waaw. fils de waaw waaw mais lambu rek di ñaan yàlla may ma ma rek. mais daa mel ni nga daan waaw lambu la parce que champion moom tamit waaw. bi mooy ñaata yoon ngeen di dajee. waaye bari waaw waaw. merci cakep Faye nee na ma leen tojee ya, bari na da kay daan da kay daan da kay daan da kay daan Abdou Karim day daan Babacar war na ma den day dor na ko tànk jàkkaarloo woon ak moom xale yi ay lan lu simple façon bëre bu nekk ci gis Ousmane Ba Abdou Karim Babacar Babacar tin Abdou Karim dani Usman Ba da Daud Agom du satu eh lo tak umbot Abdul Karim Akbar Bakar takat takat nako Abdul Karim Akbar Bakar yang bere-bere bu ayo ay berekat lan dor nako door na ko tànk Abdou Karim ak Babacar arbitre suuf na lan la arbitre suuf na nii mooy borom kum kum caaga fay mooy bis mooy borom kay bot la bot poids laissé Abdou Karim daan na Babacar poids laissé ba jeex na caaga fay poids lourd ak fils de Batli fils de Batli ak Thiaka Faye ñoo finalu Fils de Batly Thiaka Faye ngi nii Babacar maa ngi siyaar delloo ziar bu baax ci loo nekk sant yàlla yaa jël final bi de waaw maa jël final loo yëg waaw di sant yàlla rek di gërëm supporter yëpp yombu doon de non mënul yomb sax soixante-quatre lutteurs waaw mënul mënul yomb ndax nga bëri arène waaw mos naa bëri arène ñaari deux combats. deux deux victoires wala benn victoire. deux victoire waaw. kañ nga mujjee bëre. waaw def naa ñaar année balance nag ci ginnaaw loolu. kañ nga mujjee bëre 2017. waaw 2017 waaw. mais yaa ngi woote sa bopp ci li simple. waaw maa ngi maa ngi wane sama bopp man maa ngi taxal bu baax. ba tey gën nga de. man maa ngi nekk Igre Salem. Igre Salem. waaw Igre Salem ah, waaw ñoom Buuru Tan. waaw ñoom Buuru Tan ñoom Sëlu bu Ndaw. waaw. da ah, ngay ay ndaaraan na fa waaw noonu la demee nag. maa lay bëggee. waaw jaay fa di waay. waaw maa ngi fan si yëpp nag. waaw jaay takk na ko ci ndigg bi tey fils de Barli maa ngi siyaar waaw dana lazar ba final nga dem de waaw du du du nekkul tane ci dooga dem quoi bii ne ko première fois nga dem final non non non tàmm nga final bilaay noonu la demee mais caaga fay nga final loolu de mais yàlla baax na comme ma jaaral morom moom laa laa ko jaaral rek saafaanu nga daan caaga fay bokkul ak saafaanu de daan paga champion d'Afrique ay xale lan 23 ans la am 23 ans te moo ko jàppee moo xam ne 23 ans la am. bi paase damaa juum quoi. fii sa bor yàlla xam na ko. kon da ngay jël final bi. incha allah ma ko rabi. day dem loolu laa ñaan yàlla quoi. day dem loolu laa ñaan yàlla. maa dem na final. bis dem na final waxoon na ma ko kaay. final caaga waxoon nga ma ko. di ñaan yàlla rek gagné final bi waaw. Badlin fils de Badlin waaw. fils de Batlin nga am. waaw waaw mais lambu la rek di ñaan yàlla may ma ma jël ko rek. mais daa mel ni nga daan Boy Faye de. waaw lambu la parce moom tamit waaw. bi mooy ñaata yoon ngeen di dajee. compté wu ko sax. waaye bari na. waaw waaw. merci Thiaka Faye nee na ma leen dajee bari na.